dama la daan déglu saa bopp lépp lu ma yitteel ci maa ngi yàlla nga yàgg fi bokkul yàlla nga la ci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 njaboot gaa ngi nii liggéey bee ñu ànd ak man gàddu ko di ko indi nan la leer ñi lay seeral ne sa liggéey yaa ko liggéey mooy addu ci sa loxo bi nga teel ko ko te ko ko ndax keroog ba mu fi jógee damaa toog benn bis sama néeg moo waral njëkk liggéey bii ma ñëw fee di ko def ma xalaat lu ma ko mën a fayee xaw ko ndax ba ma juree ci biir kër gi mboole ma ci seen biir wëlbatiku kon defal na ma lu ma ko mënta fayee moo tax ma xalaat ne addiya Sëñ Abdou Samad de du fànq dinaa ko jël di la ko yut ila kulli halin ba keroog may de su ma doon miraas sama bopp it di yalwaani it danaa jëli addiya Sëñ Abdou Samad indil la ko kon maa ngi lay seeral ne addiya Sëriñ Abdou Samad nga ne ak njaboot gi mu àndal gépp te bàyyi ma ak ñoom ñu ngi nii ragaluma fenn nag ku ñeme laa ngir sa jëmm yox yox yu ma ci lan it ngir sa jëm lu ma mënut dalaa neex waaye loo bëgg Mbàkke ma def ko te noo bëgg ma mel ni man naa nee mel maa njaboot gii ma yor sikkuwut am nga ko man nga ko jaayuma la ko yit daf maa bir yàlla ne am nga ko kon Mbàkke ñi ngi nii ci sa wet maa njaboot gépp soxlawuñ lenn bëgguñu lenn sun ruu gi jël nañ ko jébbal la ko bu fa doomu aadama daganee Mbàkke bis booba soo njëkkee wut ci man baalu ma la ko Mbàkke soxla mu sama xol bii dara soxla mu sama jëmbuñ ji dara lu dul yow mii képp man duma siyaare sëñ Muntaxa ba fi nekkee ba si ba billahi wallahi ba fi sëñ Moustapha Bassirou jógee ba léegi taxaw ma fa sax tànk di siyaare Mbàkke siyaare wu ma kenn ku dul yow seeti wu ma kenn ku dul yow aw ma xarit man duma njaalaw ndawanteetuma jeex naa takk te fii laa war a jeexate jeex na fi njaboot gi nag dama bëgg Mbàkke ñëpp am ay teraanga te gudd fante amuk wér te doon yi taalibe ñëpp ñu ngi nii sama rakk yi tubaar fakàl la topp nañ ma noppal nañ ma solo luñ ma te ba ma xuñ ma gën doxatu luñ ma danaa la ko seereel ñoo sama yaay yii ak sama rakk yu jigéen ñi ak taalibe yi ma sëriñ bi booleel ñëpp taxaw nañ ma Mbàkke maa ngi jégul jot lii la rek. waaw. sëriñ bi. sëriñ maam Cheikh. sëñ Souleymane nee na mi ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi. di leen nuyu itam ci kër Cheikh Adama ak kër di leen nuyu itam ci kër turu kër sëñ Cheikh Adama ak kër sëñ gépp di leen sant. di leen sant. te te di leen gërëm. te di la xamal ne itam yow yow Cheikh. te di la xamal ne itam yow sëriñ maam Cheikh. nii rek nga war a mel. nii rek nga war a mel. ndax leneen loo def. ndax neneen noo defoon. lu dul lii. lu dul lii. da wàcc saw ànd. da nga wàcc saw ànd. te ànd boo dem fekk borom borom nekk ca. te ànd boo dem fekk borom nekk ca. kon nag jërëjëfati. kon nag jërëjëfati. bi nga àndee ak mi. bi nga àndee ak mbooloo mi. def liggéey bi def liggéey bi. ñëw seereel ko ku tedd kii. ñëw seereel ko ku tedd kii. ñu ngi la ciy sant. ñu ngi la ciy sant. di sant njaboot gi. di sant njaboot gi. di ñaan ci barkeb sëriñ bi. di ñaan ci barkeb sëriñ bi. mu ñaanal nu. mu ñaanal nu. ba lii nga xam ne wax nga ko. ba lii nga xam ne wax nga ko. ak lim bëgg ci noonu. ak lim bëgg ci noonu. sama borom roof nu kattan. sama borom roof nu kattan. ci barkeb Cheikh Moustapha Al Karim. barkeb Cheikh Moustapha Al Karim. barkeb moom mii. ba nu def ko fii nga nekk nag xam nañu ko. fii nga nekk nag xam nañu ko. ndax ñun ñii say ñun ñii say maam fa la nekk. ndax ñun ñii say maam fa la ñu nekk. danoo judd rek nekk fi. danoo judd rek nekk fi. nga ñëw fekk nu ci. nga ñëw fekk nu ci. kon nag alhamdulilahi rabbil alamin. kon nag alhamdulilahi rabbil alamin. jàpp nañ ne bu ko mujjee jàpp nañ ne bu ngeen ko mujjee it du yàqu. kon na jëm kanam rek. kon na jëm kanam rek. te Pastef yi jëm kanam. te Pastef yi jëm kanam. nun dongo yi. nun dongo yi. ngeen li bi wax. kon nag nan nan nan feddliwaat suñuy suñuy laxasaay. kon nag nan feddliwaat suñuy laxasaay. xam ne sëriñ bi mënul dara. te xam ne sëriñ bi mënul dara. sëriñ bu man morom ja. bu man morom ja. ca donga yàlla ca donga kon nag pasteef bi. kon nag pasteef bi. ak gi ak gor ngor gi. nanu ko fap nanu ko fap. jébbalaat ko sëriñ bi ko sëriñ bi. te bañ cee soxla dara. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. nun ñëpp nan wax alhamdulilahi rabbil aalamiina alhamdulilahi rabbil aalamiina alhamdulilahi rabbil aalamiina nu yéeneel ko sant sëñ Moustapha Bassirou boroomam sëriñ Moustapha dafa digle lu ko waay di jëfal na ko ca jiitalal sant le ko boroomam kon yéen ñi nga xam ne sëriñ Abdou Samad Gueye mooy seen kilifa te ku ne xam ne jeex na ci sëriñ Moustapha ndigalul sëriñ Moustapha loolee dafa tax. mu digal leen ngeen mu digal leen ngeen di dunde loola yéen kon nag ñëpp a ko war a def waaye yéen yéen ci raw maak yéen kon góor góorgóorlu ci loolu ci di ko liggéeyal waaye di ko ca jiitalal santale ko boroomam cant nag ak jaamu yàlla ak jaamu yàlla la gu yàlla tànnal boppam digle ko digle ko sama borom dafa wax ne ihmaloo ala daawooda ala daawooda sukuran da caa teg ne wa xaliilun min xibaadiya sakoorun na ngeen di liggéeyee na ngeen na daawuda daan liggéeyee loola moo di lu mu liggéey. da koy doonale yàlla. sante ko ko. da caa teg nag ne. ñu néew. ñoo mën a liggéeyee noona. ñu néew ñooñee nag. njabootuk Serigne Touba ñoo ca bokk. njaruk së njabootuk Serigne Touba googee nag. bu ca kenn ëppale Serigne Moustapha Bassirou. ci jëfinam woow yi. mooy jëf. yomb na yomb na. la muy jafe-jafe. la muy jafe-jafe. waaye jëfin nag. waaye jëfin nag. mooy ay teggin. mooy ay teggin. teggin mooy. teggin mooy. looy def. looy def. nga seere wet gi rafet. nga seere wet gi gën a rafet. gën a gën a jekk. nga awee ko noona. nga awee ko noona. loola mooy jëfin. mooy jëfin. kon nanuy jëfee noona. kon nanuy jëfee noona. te doonale ko yàlla. te doonale ko ko sant sëriñ bi. ginnaaw loolu nag. maam seex ñaan yii nga wax lu nu war la lu nu war ndax sa baay ndax sa baay li rëccoon sa maam Basiiru Géey li rëccoon sa maam lépp dabu na ko lépp dabu na ko ci ñaari at yim nekk ak moom fu Pastef dale fu Pastef dale fala dale fala dale yam fa mu yam yam fa mu yam ànd ak man ci liggéey boobe ba ñaari at yim nekk ak ba ñaari at yim nekk ak man la sa maam Bassirou Gueye manqué woon lu mu manqué woon te yéene woon ko ko loolu yi sa baay defar na ko ko loolu yi nag foofe ngeen dale yéen kon na ngeen doolee góorgóorlu xam na ñaari at ku ci liggéey ba jot sa baay ku ci liggéey ba jot sa baay jot sa baay moo di fa sa baay àggutoon nga àggale ko foofa loola mooy jot sa baay kon na ngeen wéyal lool yi te di ko xuuyoo boole ragal yàlla nangoo liggéey téye seen pasteef te yéenente lu baax yàlla na yàlla jàppale leen yàlla gindi leen yàlla xiir leen ci boppam ba sëriñ bi nangul nu liggéey bi ba sëriñ bi nangul nu liggéey bi te sëriñ bi nangul nu liggéey bi jërë ngeen jëf tàll leen ñëpp nangu barke yàlla barke yàlla nga fi yàgg allahumma allahumma allahumma amin ya